ci mbooloo mi nga xam ne ñooy ànd liggéey sëñ Tuubaa ci réew mi activité réew ak fépp fu ñu mën a dem ci àdduna bi waaye nag ànd ko suñu jëwriñ sëñ Moussa Seye muy jëwriñu mboolem waa nuur Daari ni gépp su ngeen ko gisee moo nekk nii sama wetu càmmooñ waaye nag ànd ko jëwriñu soxna yit muy soxna ñande sekk mu nekk nii sama euh, loxol ndeyjoor ma ànd kook nag mboolem euh, soxna yëpp nag ñu bootu ci ginnaawam waaye nag euh, ñu ànd ak mboolem góor yàlla yi ñu fas yéene nag wax dëgg yàlla amal suñu ziar général bi nga xam ni ñoo ngi koy amal ci kanamu sëñ mun Mountakha Mbacké xalifa général kullu murit yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér ñu jaar ci dëkk yu bari nag bëgg a jaar fa li nga xam ne mooy njaareem di kër gu mag bëgg faa amal suñu ziar gës fa mbirum sëriñ bi dem kër Seex kër Seex Ibrahima Fall gës fa mbirum ku tedd kooku maam Seex Ibrahima Fall Babu Mouridine daal dem ndax ku ne xamne ne tay gi mo moo tombeek màggalu Xuru Mbàkke muy tawfiq ci ñun bu baaxa baax buñ fa joggé nak ci lañuy jàll Touba ci dimanche ji fasiyene amal suñu ziar général ci sëñ muntaha mbake xalif général kullu murit xam ngeen nak ñi ngi ci édition 2022 ci 1443 ci gadda yenen tabi sallallahu taala alayhi wa sallam ci wèr wi di wèr mars waye nak tombeek ci wèru saxban ci wèru olof tamit. ñu amal ziar boba léegi nak bala ma guddal kaddi rek inshallah damay bayyi jeuwriñ su ko mu nuyo mom tamit ak ziar bi nga xamni ñu ngi koy and ak wa ties events yépp ñu war ñoo couvrir ci mboolem bis bi jeuwriñ ñu ngi lay nuyu baax di la ziar di am ak banex bu baax ci and ak yow ci jotaay bi nga xamni ni jotaay nuru Nourou ñu wara amal suñu ziar général auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahir rahmanir rahim serigne Cheikh ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu mboolem mboolem euh, wa nuru Daayir ni yëpp di leen sant bu baax di leen gërëm di rafetlu kàddu yi am solo yooyu nga wax ci euh, siyaar bi nga xam ni dañ koo tënk ci ñaari fan. bu njëkk bi mooy dem jaar njaareem ku ne xam na ni njaareem day taarix ci yoonu murit bu ñu fa jógee mën a jaar Daaru Xafoor Daaru Xafoor nga xam ni ku ne xam na ni mm-hmm. maam Saloum Fall moom maam Cheikh Ibrahima la nekk. ñu fa bàyyi ko a dem fa nga xam ni mooy Xuru Mbàkke wax nga ko léegi mhm. mooy tombeek euh, màggalu Xuru bu ñu defee siyaar yooyu ba noppit man faa bàyyi ko fanaan Tuuba di bisub dibéer bi mhm. ñu man a siyaare Sëriñ Muntaxa mhm. waaye ma yokku ci ne rek maanaam siyaar bi dafa tombeek suñ waa defal nu ci taw tawfeex bu rëy ndax suñu jàmbaar ji Seex Mu Lamin Baari Jenn te juróom-ñeenti fan yu baraxlu bi la fi bàyyi ko woon ñu war koo màggal ci bis boobu mm-hmm. kon dafa mel ni mbir mi sëñ Seex du asar mm-hmm. kon ñoo ngi ñaan ci barkeb Sëriñ Tuuba mm-hmm. sunu borom defal nu ci li nga xam ni moom lañ ci seen lépp saa borom defal nu ci kawe sunu njort di ñaanal sëñ Sidi Naar mi nga xam ni mooy sunu buntu Sëriñ Tuuba nag saa borom yàggal ko fi wéral cëram di ñaanal waa Nuuru Daara ni yëpp sëñ Seex waaw ah, ziar bi daari ni fenn fu nekk waaye bàyyi ko fa jóge fi ànd ak sa mbooloo naka ngeen ko waajee waaw waaj bi moom mooy waajoo murit rek ndax eh, Sëñ Tuubaa moom boo koy booy waaj jëm ci moom daanaka day ne fekk rek nga noppi ndax ba nga yëbbuloo rek nekk am murit nga waajoon te ku ne xam na ni lii yombut waaye pas-pas rek moo ko waral ndax kenn ku nekk tey bàyyi nga sa yitte bàyyi sa lépp loo doon def ngir eh, siyaare Sëriñ Muntaxa Sëriñ Muntaxa nag day jëmm joo nga xam ni eh, képp koo xam ni waaj nga jëm ci moom na woon ci mbégte me nga jëm kon nag war nañoo waaj bu baax am nañ fay demee Euh, ànd ak ak yar ak teggin mhm. loolu waakar naa waa nuur daani bàyyi nañ ko xel bu baax suñ seex waaye ñu ngi lay sant bu baax ndax daara ji war nañ la amel euh, njukkal amel la ngërëm ndax bari na fi ño xamni tay ji xam euh, xamé nañ seen farat ak seen sunna ba pare mëna mëna mëna am nuñ jullé sa sa loxo yi lañ jaar mën na borom guddal sa fan bu baax wéral sa cër non lañuy santé bu baax itamit euh, jëwriñ mi nga xam mooy jëwriñu gi di sëriñ khalim Sey momit it liggéey na ci liggéey bu am solo di santé euh, jëwriñu soxna yi nga xam moy soxna Njanne sék mom tamit ndax yaakaar naa soxna yi ku gis seen sol gu taaru gi ak seen muraay rafet nga xamni momit moom liggéey na ci liggéey bu reey reey kon dal bis baangi nonu nako ñepp ko rek ñaan ci dajé rek ngërëmal Serigne Touba nag mu yaatu lool nag mboole ko murid yi ak jullit yi yëpp te ñaanal Cheikh Mountakha mi nga xam ni moo toog jotaayub Serigne Touba saa borom saxal ko fi dàkkare jàggal ko fi barkeb jërëjëf euh, kooku mooy jëwriñu daara Nuuru daara ni Touba Pikine Guédiawaay jëwriñ sëñ Moussa Seye ñu ngi koy jaajëfal bu baax ci kàddu yi am solo yooyu nga xam ne yëkkati ko ci wàccaayu ziar nga xam ne moom la ñuy amal euh, ci ñaari fan yi nga xam ne ci lañ ko tënk sama loxo ndi yor nag ni ma ko waxee bala ñëw ci jëwriñu kuréel gi ak euh, sëñ Bassirou Ndiaye mi ne daanaka lépp ci loxoom la tego muy jàmbar lool ak soxna Mama Fall mi nga xam ne daanaka mën naa ne léppam ci wàllu soxna yi ci loxoom la tegu muy jàmbaar lool damay ñëw ci jëwriñu soxna yi mi nga xam ne moo jiite soxna yi muy soxna ñand Seck laaj ko ginnaaw ba ma ko nuyoo euh, maa ngi lay ziar bu baax soxna ñende ñu ngi delloo ziar bu baax sëñ seex di wax ne rek dañuy sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonent bi di ziar suñu jëwriñ di ne ziar yow sëñ Cheikh Seye Assirou di sant bu baax rek di wax ne dañoo fas yéene def rek ziar bu mucc ayib nga xam ne comme ni ko jëwriñ waxee rek bu ñu jaaree Jurbel kër gu mag su ko defee ñu jaar Daaru Xafoor euh, jaar Xuru su ko defee bu subaak jàmm nag ñu doog a dem ci ki nga xam ne nag mooy Cheikh taxa Bassirou ziar ko ziar fas yéene ko ziar ziar bu mucc ayib di ñaan suñ borom defal ñu ci taw feex nag lépp luñ ci bëgg rek suñ borom defal ñu ko ak Serigne Touba xas day di wax di sant bu baax nag suñu jëwriñ jëwriñ Moussa ñu ngi koy sant bu baax a baax kenn amul fayam ma ne ko kenn amul fayam li mu liggéey ci daare bi yëpp gis nañ ko macha allah ñu ngi koy ñaanal suñu borom defal ko mhm. taw feex gu ànd ak taysiir ak Serigne Touba di ziar soxna yëpp rek ak góor yàlla yi fi nekk yëpp jërëjëf yow yaay jëruñu soxna yi nooru daara yi ni eh, soxna yi dafa melni ni waaj nan waajtaay wu am solo nga ñek ci seen kanam naka nga soxna yi ak ndax ku ne xamni ni ziar eh, buñ koy def da am luñ koy waajee ci dal gi ak yar gi ak teggin yi ak ak eh, li nga xamanteni moy mooy yoonu mourid rawatina na buñu waré tok ci kanamu barab yoy nga xamni fa lañ jëm na ci kanam ku tedd ki ibul Fadila cheikh muntaha Mbàkke naka nga ak say soxna waaw comme ni ko waxé rek cheikh mu melni ku melni ni muntaha bokoy fekk da am no wara mel ndax moom dafa sell ba noppi kon képp koy fekki rek am na noo xam ne ku la gis rek war na laa naw ba pare soxna yi sax balaa loolu yëpp ci biir daayira bi nii lañ mel macha allah sell nañu yiw nañ wax dëgg yàlla te neex nañoo itam waxal kon daal ñi ngi fas yéene daal buñ demee buñ demee daal yal na sëriñ Muntaxa defal ñu ci lu kawe suñ njort lépp ñu xool ci ziyaar bi daal ba bëgg ko rek yal nañ ko sëriñ Muntaxa defal ba ak sëriñ Tuubaa ay ca mi ngi noonu moom mooy jëwriñu euh, euh, euh, soxna yi su ko defee bala maa jàll ci jëwriñu kuréel yi jëwriñ am na lu mu ci war doole waaye xam naa jëwriñ moom moo war a tëj kàddu yi ginnaaw ngu tijjee damay dem ci jëwriñu sëñ naa mi nga xam ni moo jiite kuréel gi ñaata may ñëw ci wàllu organisation comme sëñ Basiru wala sëñ soxna Mama ma laaj ko moom ndax kuréel xasida gi nga xam ne moo ko jiite booba léegi mu ciy sonn ànd koog waa kuréel gi ndax kuréel goo dem bu ñuy waajal lu mel ni am na ay wàccaay yoo xam ne ñoom ñu ngi koy waaj ci naka ci wàllum njàng mi ak façon njàngin wi ñuy jàng ak euh, façon ñu koy defee ci kanamu sëriñ bi waaye ak façon ñu koy defee ci bépp barab buñ jëm gannaaw bu ma ko nuyoo sëñ Cheikhouna Seye maa ngi lay nuyu baax di la ziar yaa ngi si ñi ngi yaa ngi en direct sax ci Thiès Events euh, ci ni mu àndeek ñu ngi couvrir ci biir bis bi nga xam ni mooy bis suñu ziar gannaaw bu ma la ziaree nuyu la di amal laaj yooyu ma la laaj ci diggante yow ak kuréel gi nga xam ne ànd nga ak ñoom. lay doole ziar baax la fay. di ñaanal sëriñ Mountakha suñu borom kàttan na ko yàggal ko fi lool ba lépp lu mu naan liggéeyal maamam ji suñu borom kàttan na ko ba mën koo yëgale ni mu ko bëggee jaay Seex na Seex Bamba di ñaanal suñu jëwriñ ji muy sëriñ Moussa la xam ne lii lépp moom la daara ji boo xoolee fu mu ko jëlee ba tey jii fii nga xam ne tey jii ak jàmbar rek moo tax mu agsi ba fii kon ña ngi koy ñaanal suñu borom gën koo dëgëral gën ko fee yàggal dafa ko xéewal yaatu lépp lu mu naan la lépp fu mu bëgg yóbbu daara ji suñu borom defal ko ko euh, boo ma laajee comme si kuréel gi dinaa si sawar a tontu ndax ay jàmbar rek ne Soucouré gi ba tey ji suñu borom dogal na ñu def prestation boo xam te ni si buy mucc ayib daal boo xam te ni bañ si dalee liggéey yàgg na ba tey suñu borom dogal ñu agsi ba fii kon fas yéene nañoo euh, liggéey sëñ bi si xasida yi si anam bu man di doon fas yéene fa sëñ bi tegoon xasida yi ak fam ñu euh, fam ñu teg pour ñu jàng xasida ak sellal gi su borom dimbali nañu si te boole nañu ay jàmbar yoo xamante ni si moom seen lépp a sell dara caaxaan nekkul si ñoom jàng xasida ak liggéey Sëñ Tuubaa rek moo nekk ci ñoom su ma dogal nag euh, xasida bi nga xam ne moo di moo di xasida ziar bi di Fawzeyni mi nga xam ne moom la suñ moom la Sëñ Tuubaa aare Tuubaa ak euh, ki minalul baaxee xaadim mi nga xam ni moom mooy programme ziar bi ak yeneen i xasida yoo xamante ni si dañuy bàyyi rek ba yegg ca bu ko defee suñ mbooloo mi ñu mën ko taataan daal am na ay surprise yoo xam te ne si si kuréel gi yoo xam te ni dañuy bàyyi ba yegg ca ñu mën koo euh, indil mbooloo mi dégte leen ko taataan ko pour. kon daal gars yi mën nañoo xaar ni daal wax dëgg yàlla mën nañ faa am ay xeetu daaj yu am solo yoo xam ne Nooru Daane waajal nañ ko. waaw mën nañu xaar ndax am nañ ay xeeti daaj yu am solo yoo xam te ni si Nooru Daane pare na ko te ziar ba lay génn bu soobu yàlla te bëgg nañ mbooloo mépp teewlu ko ta te xaar ko ta xam ni su mborom dina dina dogal euh, li nga xam ni moom lañ bëgg muy mbégte njaam ñi ak liggéey si Ahmadou bàmba su mborom may ñu yegg seeg jàmm ñu bégal mbooloom bu soobee yàlla. ayca mi ngi noonu kooku mooy jëwriñu euh, kuréelu Nooru Daare ni sëriñ Seexuna Sey ñaataa may ñëw ci sëriñ Basiru damay amal waxtaan wi ak euh, soxna ma Mama Fall mi nga xam ni euh, moom moo jiite daanaka lu ëpp ci moom la soxna ñande teg lu ëpp ci wàllu liggéey bi ci soxna yi mu jiite ko nga xam ni bu ñu gisul soxna ñande lu ci ëpp moom la ñuy gis mu nekk mu jiite soxna yi muy jàmbaar nga xam ni daanaka li muy wuute ci daara ji bariwul wala boo ko defee ngànt lu rëy moo moo moo moo koy waral muy jàmbaar loolu nag ci liggéey bi ci taxawaay bi nga xam ne ànd na kook soxna ñande ak mboolem njabootug soxna yi Nooru daarin gépp soxna mama ginnaaw ba ñu la nuyoo ziar la nga yor liggéey bu rëy ci wàllu nooru daarin ci soxna yi. bu baax baax Serigne Cheikh di ziar mbooleem euh, daayira nooru daara ni jaarale ko ci jëwriñ musaa ak sunu jëwriñ bi soxna Ñande Seck noonu la ñuy ziaree mbooleem koo xam ne mu ngi suivre télé bii di Thiès TV am mbégte loolu nag taxaw fii si euh, turu daayira bi ci wàllu organisation bi ak yooyu nga xam ne daanaka jëwriñ ji dañu cee wóolu te amaana du loo xamante ni bii lu yomb la. du lu yomb lu jafe la waaye ñoom ñoo ko yombal ndax jiital lu ñu ba pare duñu fakkastal dama dégg ci mag ñi ñu ne peccum liir bu neexee ndey ja moo jàpp ci mbagg ya te daanaka jox nañ ñu liggéey ba pare bàyyi ñu ñu dem ak sunum xel waaw lu ñu wax rek loo xam ne jàpp dinañ lii rafet na fekk suñu ci ànd seeg ñun waaw ziar bi nag wàcc nañ ko wàccaay bu ci ayib comme niñ koy waxee rek ñu taxawee taxawaayu soldaar pare pour lépp loo xamante ni bi jóorin yitte woon na ko suñu jëmm yi noppi nañ pour taxawal ko incha allah. Euh, kon euh, gis nañ lépp loo xam ne euh, jëwriñ ñi teewoon na ko seen jëm muy nopp ngeen ngir defar ko mu mel ni wàccaay ngeen wàccaay bu am solo ci wàllu liggéey bi dafa mel ni ci wàllu organisation bi lépp jaar na yoon te àgguguñ ci barab yooyu nga xam ni foofu lañ jëm naka ngeen waaye ci wàllu organisation ndax ku ne xam ne ne soxna ni muy organisé woo ci demee ci bis yu mel noonu dafay yaatu lool ndax bu dee waañ wa ñongo ca bu dee ca durus ba ñongo ca te gis nañ ponk yi bëri yow da nga caa bokk ci wàllu durus bi ci wàllu waañu ci wàllu liggéey bi ci xeet gépp dañ la cay soxla jigéen ñi war nañ ko am ci euh, taxaway boobu muy soxna yi ci ziar bi te yow nga jité ci lu bari naka nga leen di soññee ba ñu mën a waajal wàccaay dana gënal daara ji waye dana gënal Serigne Touba. ah asa sëñ Cheikh tawfiq do nga lay doon ndax amana dañu gis ci soxna yi ak bëgg go xamanteni bi bii li ñuy def bëgg ak yëg-yëg motax ñukoy def manam li ñuy soññee suñu bop rek lañ leen di soññee maanaam nañu yor nañu ray ci soxna jaara ci dégg ga nga xamni déggon nako manam tay ji buñu soxla leen nañu paré ki ñu jiital ni ko lii nii yow yaay ñëw wax nañ def lii maanaam bu ñëwee ni lii la rek bu ñu xalaat bu ñu teg kii nañ jug def loolu pare nañ pour loolu maanaam loolu yëpp dox nañ ci wax nañ ci ba lenn rek la ñuy xaar def leen ñu def foofu lañ taxawee fi mu toll nii daanaka lépp mat na loolu rek moo ci des. mi ngi noonu lépp mat na lu bëri ci liggéeyam Nour Daari ci loxoom la nekk mu ànd ko nag mboolem kàkk yi nga xam ni man na fee teewalal kàkk yi wax ci seen biir ci liggéey bu rëy bi nga xam ni ñu ngi koy liggéey ànd koog Daari Nour Daari ni sëñ Basiru maa ngi lay nuyu baax di la ziar ci ziar bi nga xam ni ñu ngi koy waajal fële ca Touba ak dëkk yi nga xam ne bëgg nañ faa jaar ngir barkeelu ci jeexantalu sëriñ bi ak jeexantalu Sidi Ibrahima Fall waaye nag jeexantalu Maam Saliou Fall radiyallahu taala anhu kon su ko defee ginnaaw bu ma la nuyee ziar la waajtaayu ziaru Nour Daari ni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 kon ñi ngi sant loolu baax a baax sant gi nag dañ ci jiital ki nga xam ne moom moo ko waral muy jëriñ Moussa mi nga xam ne mënu jiite danaa ko faral di wax ci réunion yu bari wala ma koy faral di wax ci dajé yu ñu am yu bari muy maanaam day jëriñ ju mat jëriñ ndax jëriñ ju mat jëriñ mooy da lay jiital ba pare bàyyi la mbir mi ne la doxalal ñun nag comme ni nga ko waxee rek ay ndaw lañ ci daara ji waaye liggéey bi liggéeyal borom Tuubaa dañ ci ànd ak pas-pas mooy xam nañ day tool boo xam ne nii ku ne xam ne fi leen fas yéene borom Tuubaa ba xëy laa ko waaye comme ni nga ko waxee man ceeg akadama bu kawe muy kàkk yi ku ci mel ni ñoom sëñ Yuusuf sëñ ñoom Modou Diop ak Bamba Gueye ñoom Sëñ Saliou Ndiaye ñoom ñëpp rek ànd ak man fu ma joxoon ñu ne foofu la kon ñoo ma dooleel ba tey luñ may jox bu fekkee ne mi ngi dox ni mu war ñoom la comme ni ko waxee ne ñu ngi wàcc boo xam ne nii yaakaar naa ay weer ngi ni ñu koy ñu ñu ci dox di ci wax waaye nag muy wàccaay comme ni murid di ziare rek waaw ndax ci leen jëm mu mel ni nag day mel ni loo doon xaar a at di ko xaar ay weer boo demee ba ngay tey ngay départ kon yësi na yàlla dimbali nag wàllum organisation bi wala lu ëpp ci daara ji day jaare suñu loxo di di wàcc mu mel ni nag kon pare na lépp loo xam ne murid da koy pare fa yéene dem dem ziar bi lu jëm ci wàllum organisation bi taxaw nañ ci bu baax a baax bu dee ci côté góor yàlla fexe na ba nga xam ne comme ni nga wax ci barab yi nga xam war nañ koo ziar muy keesu côté di gën war dem ziar fële ci Jurbel pare nañ ci bu ñu yeggee dina ziar organisation boo xam ne ni kay ku ko seetaan li nga xam ne ñi ay murid yu am possible yu bëgg borom Tuubaa yu fas yéene ñëw ziar borom kon sa jeex ci tënk rek may daara bi di nuuru daara Pikine Géejawaay fas yéene naa jaar Jurbel ànd ak jëwriñ Moussa waaye ànd ak jëwriñ Cheikh Seye mi nga xam moo war a jiite affaire yi ànd ak jëwriñ Njande ànd dem ci bare bi mel ni kër Sëñ Tuubaa gi waaye fas yéene dem tamit kër Cheikh Rafal ga buñ fa jógee tamit ci lan war a dem fay di xuru te comme ni ngeen ko wax tax féeg ci am nag daa kawe ndax yaakaar naa bi jàpp xamee woon ko nii kon bu nee nii day mel ni suñu bis yaar dalagun nam xel te départ agun muy màggal ak xuru Mbàkke bi mu ñu doole waat ci li gën a kawe muy daar xafoor nga xam ñun ñëpp xam nañ ko fa teg suñu sa tànk suñu borom jégal la kon yaakaar naa nuru daarin pare na lépp lépp ci côté finance pare na ci côté organisation pare na ci côté lépp culture rek pare na ci kon ñu bàyyi xel bu baax a baax kon daal xam naa ne bu fekkee am na yeneen kàddu yooyu yëkkatiwaat di ma ko laaj maa ngi lay déglu waaw koy jërëjëf euh, sëñ Basirou li ma ciy dolli rek lu gàtt la mooy gu nga xam ne liggéey bu liggéey bi nga yore ci sa loxo liggéey bu rëy la liggéey bu diis la nga ànd ko comme ñi ngi ci àndal ñëpp ak mboolem njabootu Nuuru Daare ni jël suñu jëwriñ sëñ musa féete ko ci suñu kanam mu féete ñu kanam jiite mboolem daare ji liggéey bi naka nga ko mën a téye yow téye sa loxo muy liggéey bu rëy ñuy wàcc ziar bi booba ay at ñu gis nañ bu màggal ñooy taxawaay bi ñu ciy am yaa nga àndal gis nañ mboolem nuuru daari lépp lu ñu wane organisé wu rek da ngay ne ca kanam wane ca pësteef wane ci njàmbaar damay wax ni bu doon mën a sax xam naa bu ma tëddee du ma nelaw te yow damay gis ni liggéey bi ni muy rafetee ak ni muy jaare yoon waaye wàccaayu ziar ba dafa yàgg bañ ko dalee jàpp xañ naa man naa ne yàggul yàggul ndax pësteef nga ci demee te gis ngeen tamit ñu ngi ciy àndal xañ naa ne njabootu nuuru daari daa mel naqari wu waxal waaw sëñ comme ni nga ko waxee rek boo liggéey léegi ñoo ci borom Tuubaa da nga naan tax ñoo ñoo la ëpp pas-pas kon soo leen jiitee rek dañuy neex a jiite liggéey bi nag yomb na yombul ndax liggéeyal borom Tuubaa ku ne xam ne yombul waaye ni ma koy faral di waxee rek danoo judd ci murit suñu waajur tër bu yëpp sëriñam ba làq ngërëmam ñu duy nekk ay tuut tànk bëgg sëriñ bi lool kon bu ñu ñëwee tab bi ci liggéeyu sëriñ bi am benn cër boo xam ne sëriñ bi daa mel ni ku ko teel a jox kon dañ koy fonk li ngay wax dëgg la ndax lu mel ni ay màggal Tuubaa yu mel ni dina toll ay guddi yoo xam ne nii doo nelaw mais ñàkk la gi nga ñàkk lu dara ngir bëgg réussir lén la jox la wax naa ko fu bari nak ligël borom Touba du am jang doy ay diplôme lén la rek woor deugal jubal ande ak passeport bu seel lool la rek lool nak tawfiq la wa waye nak dama leen koy santé wat ñima ñima ñima ñima ko àndal lepp jidal ci jëwriñ ndax ñima ci mag bari lool waye fuma taxaw pas-pas nak bima ci démé manit fu jëriñ joxoon duma taxaw so sur moko suma ko su liggéey jëriñ woma wallahi fuma fu ci daara ji ma dem pas-pas bobu la ci fas kon ñi ngi ñaan di barké Cheikh Khadim ziar bi nga xam ne boobu léegi ñu ngi koy waaj ba suñu borom yàlla dogal ko ñu àndandoo organisé li organisé bi na suñu borom dafa tawfeex ñu am ci lu kawe suñu jor Cheikh Mountakha ko suñu borom yàggal fi lool barke Cheikh Khadim dañ koy yóbbul yàlla na suñu borom def ñu jaar dafa yees ba faw barke Cheikh Khadim laax ci ngërëm lu kawe jërë ngeen jëf duñu soxna yi soxna mama sëriñ na Seye ak jëwriñ sëñ Moussa ak sëñ Basirou Ndiaye mi nga xam ni moo mujjee rotal kàddu yi léegi euh, kàddu gu mujj gi ci jëwriñ musa lañ koy jëmale mu mel ne am na leneen lu mu bëgg a dolliwaat ci liggéey bi euh, muy wàccaay wi nga xam ñu koy waaj jëm foofe nga xam ne mooy euh, Touba waaw jërëjëf sëñ Cheikh nañ koy tëjee moom daanaka ay kàddu cant rek ak ngërëm lay doon ginnaaw bu ñu siyaaree sëriñ Bassirou Seye bu baax ndax dafa mel ni dafa jàpp jamono yi waaye waroon naa teewee jotaay bi kon noo koy siyaar bu baax di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal saa borom guddal fanam wéral cëram ko ñaanal tamit tout tànk bi sëriñ Moussa Seye tux fatu ak mboolem tout tànk Nour Daarayni yëpp waaw di sant nag bu baax euh, sëriñ Bassirou Ndiaye mi naa koy beralu cant lool ndax liggéey bi kat bu yombee ci man wala mu woyof ci man ci moom mii la ndax lépp du ko jël rek téye ko ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa jël mag gi ma ko mag yooyu yëpp teg ko nële ni ma doxal doxal dama jox ma ma doxal mu ànd ko kàkk yi nga xam ne tamit ñoom ñëpp amel naa leen cant amel naa leen gërëm waaye li ma gën a neex ci seenu ànd nag mosuñoo werante mukk ba ma yëg ko mosuma leen defare mosuma leen atte loolu nag dafay mel ni kon sëriñ bi rek moo ko lal te kon nag loolu ci moom mi jiite la ndax boo jiitoo kat doxoo na la wër ni ñi nekk sa ginnaaw mën nañ laa fakasal bu boobaa coow mën naa am kon maa bu baax di ko gërëm wéral ci ram liggéey bi nga xam moom nga ñu ko dénk saa borom woyofal ko toy te mu dëppoog na ngërëmal sëñ Tuubaa waaw loolu daal mooy mbir mi kon nag sëñ Seex mbir maa ngi noonu na saa defal ñu dem ak jàmm ñëw ak jàmm ci dara jëy sëñ Tuubaa lépp dëppoog ngërëmal sëñ Tuubaa tamit ndamul nooru daal di ndamul murit yëpp jërëjëf sëñ Seex ayca mi ngi noonu euh, kon nag wàcce ay ziar Nourou Daarayni euh, ci édition ren 2022 euh, waaye nag ci atum 1443 ci hijriya na tombe ak sahban euh, ci euh, jurom ñetti fan ak jurom ñentelu fan bi ci sahban waye nak ñing ci ciy ñep di ci balu ñep ak di ñaan suñu borom defal ñu jamm defal ñu taysir kooku lu man xaddama fa najjihi wa firluhu awzara señ Tuubaa neena kep ko xamne liggeel nga ma wala nga siyaar ma suñu borom neena say bakkar ta dana la yalla nañu yalla boole ci ñaan wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh فجاني بمكر فقري مدركا وجاني كريم عام أسسي بأجر ما كتبته لكسسي فجاني بكون كل عرفي كتبته لي بأجر سيري ذكر كريما كاد في السواري بموجب القلوب والأموال عن ربي jërë ngeen jëf uh, mbokk yi nga xam ni ñooy uh, suivre suñu scène bi nga xam ni mooy Thiès Events waaye nag ci wàccaayu ànd ak daaru Nuuru daari ni Touba Pikine Géejawaay ñi ngi fii ci uh, Buqaatul Mubaraka fii ci Njaareem ñu ñëw nii tey nii taxaw ci kër gu mag gi waaye nag di leen présenté koo xam ni tey jii moo ñuy fas yéene présenté bépp barab boo xam ni mu ngi ci biir kër gu mag gi muy suñu jëwriñ suñu baay sëñ Babacar Sylla di saytu bokk ci ñuy saytu barab yi nekk fii ci biir kër gi waaye nag jiite daara Muxaddamatul Xidma fii ak Saadatu Tulaab jiite dimanche ni fii amal liggéey bu am solo moom la ñu fas yéene mu présenté ñu ak dikk gi nga xam ne dikk nañ ko fii ak sëñ Touba lan lan la def ak ñaata at la sax ak barab yi fi sanc ak ni nga xam ne noonu la daan defaree mag ñi ci diirub at yi nga xam ne def na ko fi ak njabootu sëñ Touba gi nga xam ne fii lañ feeñee ñu yóbbu leen fële ci Xuru Mbàkke eh, ginnaaw loolu ñu ngi nuyu bu baax eh, eh, ci njiital sëriñ Moussa Sey waaw kon comme lii ñu àggale liggéey bi ndax ñu ko tàmbale maam Cheikh Fall moo ko xam mhm. la moom mooy njëlbéenu néeg bi fi def mhm. Mam Cheikh Fall mhm. euh, bi lu mujj ci muy xam ku fa ku fa mu fekk la fa waaw nee na itam foofu la wax lu ko fa waaye ñaan boo ko amul ci yow la mhm. waaw kon euh, boobu foofu nga ak garabu xay gi nga xam ni mhm. euh, sëñ bi moom moo seere ni moo ko jëmbat ci loxo boppam daan ko sa ci salaam bind waa bayit bi bayaxtuhu fil bari taxta sa yara wala baru tey bu nu waxaw li barara mhm. xam ne na foofu lan toog ma ngi di jaanteeg moom bokkut ak bayituhu bi nga xam ni ci géej gi la woon nga xam foofu la daan mag yi gars yi di jaayanteeg moom ci caay-caay ah, kenn ku ne di sa morom maa gën a yéene sëñ bi ak lor waaw nga mooy mooy foofu ca ca ca ca géej ga dégg nga waaye nee na ñaari garab yooyu ñaari garab yooyu ku dul moom da nga ne moom a gënal mhm. loolu ak jàngale la ci biir mhm. waaw waaw loolu sama gis yu moom mooy sëñ bi dafa lu yàlla dogal ci moom rek neex na ko ndax kon ndogalu yàlla il faut ñu nangu ko mhm. boo xëyu suba faqiir wala nga xëyu suba yoroo dara santal sa borom te xam ne loolu yàlla dogal boo ko bëggee nii da ngay sonn rek kon da muñ doy loolu li nga xam moo fi nekk bu dee wér gu yaram gee kàttan gee yëpp nga xam am nga ko nga sant ko sa borom te xam ne xëy na bu soob àddina soppeeku waaw waaw ngay noonu suñ bi noonu la moo tax moo tax mu gaa yi toog ci garab gi jëmbat ko fi ba def fi toog gaa yi jaayante ak moom ci baax ak yiw loolu coobare borom la ndax bu ko nekkoon tamit ay ay kàccoo di nekk fi wër ko fi waaye fee mu nekkoon tamit yàlla ndax moom la fi jaamu la yàlla doon jaamu di matale jaamu yàlla yi ci ndigal borom bi teewul ay ay kàccoor yi wër ko mhm. bu defee ay jàkkam ñu dasaare ko saw ci lu ne léegi ñu def ko fa mhm. dégg nga fii nag mu ñëw tamit mhm. yàlla la sob mu tàggatul ay gaa yu baax fii tamit kon gis nga nit ki tamit lépp loo mën a nekkee boo ànd ak morom mu am loo amul tamit muñal rek xëy na sax bu ñu demee ba ci kanam tuuti yaa ko ëppale mm, waaw waaw waaye waaye loolu li tax loolu si ak dignité ak passif bu sell ak ak ak sell mooy muñ moo la fay àggale ndax boo muñul rek li ci kanam bu ñëwee neex loolu tamit du am barke ndax dafa fekkoon nga yàq sa nga yàq sa sa personnalité ba noppi loolu amati xorom moo tax mu ñu dafa am solo waaw waaw waaw ak doylu doylu tamit mooy ci ñëpp la baax waaye rawatina ci jigéen jigéen moom bu doyluwul rek fooy boppam waaw kon doyluwul nag moom ci la lépp ne waaw waaw moom mooy moo tax sëñ bi loolu mujj digle ci garab gi jamono ji ndaxale na nga mhm. bi am na lu ci ñaanoon yàlla nañ dayuñ teg moom mhm. moo ni suñ borom bi ixfir lii kulli man ilayya maala wa an yadayhi laa tuzaxzih maala yow suñu borom bi kat maa ngi lay ñaan képp ku jàng jëm ci man comme nii ñu def nii jum jum jëm suñu la jum ci suñu borom sëñ bi nee ñooñu na leen jéggal boo leen pare na saxal ci na def ak koom ci seen loxo yi kon lépp ngi sëñ tool lu ñu bëgg rek loolu lam mu jafee rek demal ci sëñ bi wuti ko fa xam ni fa kon teen bii ngeen gis nag euh, teen bee moom la bokk na seen yi fi bu ñu demee ba ca mbas ma jamono peste bi mu ñëwee nga xam ne muy wuri feebar bu wopp woo xam ni fu mu dugg ñëpp ñëpp dañu gàddaay foofu waaw xam ne mag ñi kenn ku ne jógee nga béréb ñëw ci bëgg gi sëñ Tuubaa ngir mucc ci mbas moom ci la sëñ binda saafara bindaal saafara def ko ci teen bee ni nga képp jotewul ci moom ku amul taw fekk gis sëñ Tuubaa moom boo amee ci ndox mi rek saafara mu saafaro gis nga fi mu toll lañ koy mu toll gis nga dafay jeex saa suñ ko ubbee rek gaa yi song fu nekk li ñu saral ñëpp dañu ñëw diko ko moom mooy zam-zam nga xam ne kon euh, gis naa koo xam ni loolu maa ko gis gis naa tamit sëñ Saliou di yónnee ba Touba di ñëw di ko root si fii. gis naa koo xam ne wéré na la ñu war ko opéré mu ñëw diis ma ko ma ne ko teen bi de saafara la boo jógee ci saafara boobu ñu ko digoon jaaru ca ba ni mu ñibbee àjjana tey ji teen bi mat naa wut di yóbbu ci ci moo tax ma leen koy wax nga xam fu ngeen mën a nekk sax bu dul tey ji tamit rek waaw moo ne moo tax ma leen ko kon euh, kon kër gi ñu dëg mal nag nii fi tam mooy jàkk ji nga xam ni moom moo nekk ne moom la sëñ bi daan fii daan jullee waxtu juróom fukki at ak juróom ak ak benn fi nekk yëpp fii la daan def jumaa ji dafa daan dugg di fi naa fi la rek mhm.

kon gis nga sëñ bi saa su nekk lim lay jàngal noo fexe ba jógee sa borom moom àddina moom xam na ni àddina yàlla kenn ku ne fàggul na li ñu foon am ba noppi léegi sëñ Saliou na ko bi ñu fa nee na kenn ku ci nekk ñaari biir nga am sa biiru bopp bii ak sa biir bàmmeel leen sa biir bopp bii bu mu la itteel muy àddina gi bu mu ñu itteel ñu suñu biir bàmmeel itteel ndax àddina fii lenn lu kenn ku ñu fi indi lépp lu war a dugg suñu biir yi moo ñu koy fàggul wërsëg beeg yëpp kenn da ngay dem ba nga wala nga ko amoo ko waaye jóge fu sore ñu fekk la fa lu takku waaw dégg nga kon nga xam kon loolu wërsëg dugg ci géej gi jalu ñu rey suñu suñu baay Babacar euh, léegi bala ñu dugg ci biir bëggoon kër gi ñaata kees la ndax ñi ngi wax ni sëñ bi defoon na fi ay kees yu bare bare bare yoo xam ne benn bu nekk am na kees bu ko tuddee woon wàññi woo naak yi ba mu ba mu àgg ni ba mu mel na ni ba mu ba mu mel na juróom-ñaar fukki kees la woon ak ak noom xam naa daal euh, juróom-benn fukki yi moom teg na waaw waaw waaw juróom-benn fukki yi gi ñu dugg uh-huh. fii mooy keesu jàkk ji uh-huh. moom moom lañu nekk nii jàkk ji moom mooy moo barak bi suñu daan jullee uh-huh. waaw teen mooy euh, kees bi ngeen di gis tamit mooy teen bi nga xam ni moom moo xamal mbooloo mi ni keroog euh, Cheikh Moustapha sëñ Basiru sëñ Malim Diop Dagana mhm. mag ñooñu bi ñëw ci néeg boobu di fekk sëñ Tuubaa li xew-xew mhm. li xam li tax ñu xam ne talaata bi jógee mhm. teen bii si la sëñ bi wane boppam ndax keroog bi ñu xëysee di ko seet si dañoo ñëw ci boobu dafa taw ba séwét bi ñu ñëw ba ci bunt bi ñu gis sëñ Tuubaa génn na ci bés boobu ba ñëw ba ci teen bi nga xam ne ñoom bi ñu àggee ci néeg bi dañoo fekk sëñ bi li xew-xew ba noppi nga xam ne kon boobu ñoom kon teen bi loolu sëñ moom dara am dara am du lëndëm boobu la moom moo ko jublu rek wan wan wan wan wan leen bés bii bés bi génn na fi fi la fi la bés bi ci la wàcc muy talaata jooj waaw nga xam bi ñu ñëwee fii lañ gis moom kay kon suñ teen bi mooy doon teenu suñ moom la xam ne bu ko jigéen tiim teen bi moom mooy ay ay no raxmati fii ci ñaareem bii nag moo doon teenu boppam mag ne daan na ko waajal di ko wër lu bare di yoon di ñaan di def ci benn daan na bind lu bare def ci biir sëñ Bassirou mi nga xam mooy waajur sëñ Mountakha bu daan dugg xelwatu di fatu nga xam ne ay fan yu muy tëju day woo jëwriñam ñi nga xam ñoo ay joga ñaale mbëkk néeg yi ñeen képp ku ñëw da soxla ko neen ko leerlu ba xam lan mooy ay jéegoom bu fekkee ne ñaan ñaan lay wut si nee na bu ko fi téye kooku neen ko teel a yeew jox leen ko ci saafara rek mu jëm tam fas lim fas gi lim ci bëgg kon teen bi gis naa lu mu def ko يقول لي ولا يقول lillah

حبيبي خير الكون وين كل مسلم ومسلمة وقد كفاني الغداء السلامة نفى الكريم درري ومهدي وكان لي في أبد بخالي قلبي قد صفى وجسمي صحيحا ولم أزال صافيا مسخفا هي يسوقاني بلا مرض ولا أزل وقد أغاني الخرج من الذي تكين من لا يخاف عليه سيجاب قد مكرما جئت الكريم وأتى بني الخرا وبمنازل أدام الخرا له ختامي وأتاب قلبي ولست سادف ولا ساجلبي له ختامي وأتاب قلبي ولست سادف ولا ساجلبي ليجلبت ودفعت عني ما قبل لي والعكس يا سلمني ملكني سلبت لي تمليكا حسنا تفريفا على ملوكا يقول لي كن فيكون منك سوري جامي خدديت عنك ملت بالغلام والغرامة نبات بالجوال والأليمة سلطة لي النفى بغير yéen a ngi doon topp ci euh, ziaru Nuuru Daarayni Touba Pikine Guédiawaye euh, ginnaaw bi nga xam ne jóge nañ fële ca réewum Ndakaaru wàcc fee nga xam ni mooy euh, njaareem muy kër gu mag fële ca Jurbel bokk buqaatul mubaaraka ci ziar bu am solo boobu xam def nañ ko tey nag ñi ngi fii ci xuru Mbàkke xuru Mbàkke nag euh, barab bu am cosaan la ci yoonu murit xam ngeen ko xamee doomi Sëñ Tuubaa bari fii lañ tëdd ci barab bu sell bi Sëriñ Bay Jaxate it euh, di kenn ci Sëriñ Tuubaa daan werekaanu Sëriñ Tuubaa fii la tëdd ci barab bu tedd bi waaye barab bii ñu nekk ngeen gis ko mooy barab bu Sëñ Abibu Mbàkke di rakki Sëriñ Tuubaa Sëñ Abibu euh, moom soxna jaar bu so Poroxaan waaye nag muy barab bu bari ay ay ay ay ay ay ay cosaan barab boo xam ne bëri na ay may barab boo xam ne bëri na ay jeexite ndax doy na sëkk ci ni rakki sëñ Touba la ñoo bokk ñaari wayjur fii lañ taxaw tey maa ngi ni taxaw ak uh, suñu jëwriñ uh, sëriñ Moussa Seye waaye taxaw ak sëñ Moussa Seye mu ndaw taxaw ak tamit sëriñ Basirou Ndiaye ak sëñ Basirou Seye sëñ Jibi sekk ak sëñ Abdou Khader lépp rek ci wàcc ay ziar Nour ni jëwriñ mi ngi mel ni tey ñëw nañ ci uh, barab bu tedd nag boo xam ni ñu ngi ko doon wàcc ay at muy xuru Mbàkke waaw Cheikh ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci bi di di yeesalaat suñu njébal rek ci Serigne Mountakha mi nga xam ni moo fi nekkal Serigne Touba tey ñaan suñu borom guddal fanam wéral cëram dama ànd ak murit yëpp nag muy barab boo nga xam ni comme ni nga ko waxee léegi rek barab la boo xam ni taalib yëpp dañuy ñëw fii di ko xencu bañ koy programme yi fi ñëw nag jàpp ñu woon ni dina dëppoog ci ay màggalu Xuru Mbàkke waaye lépp rek day wane rek pas-pas bi ñu am ci Serigne Touba ak pas-pas bi ñu am ci barab bi ngir ñëw siyaare ko moo nu may tey mu dëppoog tawfeex yi ñuy taseeg bisub màggal gi kon nuy sant yàlla bu baax rek di santaat Serigne Touba rek di gën a siyaaraat barab bi rek di gën joxaat war ma ñaan lépp loo xam ne ñaan nañ ko rek saa borom ko te fulal ñu ko def ko addi Sëriñ Tuubaa nag buñ ci noppee salaamaaleykum wa rahmatullah ayca mi ngi noonu kooku mooy jëwriñu daayra Nuuru Daara ne Touba Pikine euh, Géejawaay jaajëf ñi ngi tax ak euh, kenn ci euh, wax dëgg yàlla mën nañ ko tuddee porte parole daara ji muy jëwriñ sëñ Basirou Sey muy jàmbaar lool ci liggéey bi di wayjuru sëñ Moussa Sey mi ma dendal ci sama càmmoñ di jàmbaar lool ci liggéey bi yorol kuréelu Nuuru Daara ni daan ko doxal doxaleen wu am solo ba yitte ji dem ba bari ci moom ak liggéey bi sëñ Moussa Sey bi nga xam ne mi ngi koy liggéeyal sëñ Touba tax na jot gi bareetul waaye mu jël liggéey bi jox ko Cheikhouna Seye euh, waaye moom it yàqu ci dara mu koy liggéey liggéey bu am solo ànd ko kuréelu Nour Daani sëñ Basiru gis nga ziar bi nga xam ne Nour Daani ziar nañ ko jógee fële ca Diourbel ñëw tey fii ci xuru Mbàkke bëgg fee amal ziar bu am solo dina ci xabru bu am solo nag muy rakki sëriñ Tuubaa di sëñ Abibu Mbàkke ak ziar bi nga xam ne waa Nour Daani wàcc nañ ko mbégte mi nga xam ne moom nga ci war a àndal ak kontaante gi nga xam ne nekk na ci sa ji waaw jërëjëf sëñ Cheikh noo ngi lay siyaar bu baax di siyaar mboolem waa Nooru Daara yëpp jiital ci jëwriñu liggéey bi Serigne Moussa xam naa ni waxtu wi day xaw a kii dañuy tënk kàddu yi rek waaye am nañu mbégte mbégte moo xam ne daanaka daanaka lu nekk suñuy xol mënuñu ko génne ci suñu làmmiñ ndax fii ku fi taxaw rek sa yaram dina daw ndax waa Nuuru Daari yëpp ànd nañ muy muy muy jigéen muy mag muy ndaw kenn ku ci nekk ànd bokk benn passas muy liggéeyal Sëñ Tuubaa jugee njaareem ziar fa ziar bu am solo ñëw fi ci Xuru Mbàkke ziar fi bu am solo mu jugee war a dem Tuubaa kon daal ñu ñaan lépp luñ fi ziar rek ne yàlla ko ko am solo jërëjëf euh, ne moo nekk ci barab bi amoon na ñaari kàddu yoo na ko yëkkati leeralal ñu Euh, kan moo tëdd fii ak lan mooy cosaanul euh, barab bi su ko defee dañuy dox tuuti euh, fekk si ko ngir mu man ñoo xamal lan mooy bés bi. waaw ki fi tëdd Habibullah lañ koy wax Habibullah rakki sëriñ Touba la joo xam ne maanaam dane bi mu nekkee ci géej gi mhm. da ko faa fekk ay yoon di ko wax ne ko ñi mhm. nga ma. Euh, nii ma la mujjee ginnaaw wéet mhm. su fekkoon ne mhm. eh, yaa ma mujjee ginnaaw noonu du la bàyyi nga wéete nii mm. ci kaw lool nag ci la waxe ci gàttal daal mhm. sëñ eh, Mbay Jaxate ne ko demal wéetalil ma ko ci la ñëwee euh, wéetali ko fi léegi nag ginnaaw bi ci la euh, waa sëñ Touba ñii ñu fi indi ñëpp ci ginnaaw bi lañ leen fi indi waaye sëñ Abibula moom moo fi jiitu moo ak sëñ Abdou ñoom ñëpp moom rakki sëñ bi lañ ñee leen nag waa sëñ bi lañ waaw sëñ Mbay itam sorewut ak waa kër sëñ bi foofu mooy baraba waaw eh, kii saytu barab bi nag ku ñuy wax sëñ Taala Jaane la waaw moom mooy saytu barab bi waaye dafa mel ne dafa génn waaw man man eh, dama cee bokk rek léegi ñii ñëw di waa daayira waa Pikine xam ma ne ma eh, xam naa woo ma daal pour ah, waaw mën naa leen a gën a leeral sax lu gën a kii loolu waaye timis ji day xaw a jege te itam maanaam taxuñoo mën a waxit ñaar waaw loolu daal ñu tënk ko noonu rek. <laughs> jërëjëf kon macha allah leeral na leer am solo ci ni ki tëdd fii mooy sëñ bi bu di rek ci sëriñ bi nga xam ni moom lañ njëkk a daal fii mu tëdd fii fii nga xam ne mooy xuru Mbàkke xuru Mbàkke nag mbokk yi euh, cosaan la ndax euh, soxna Jaara Buso euh, fii nga xam ne sàkket woowu ngeen di dégg fii la ko téye woon sëñ Mamar Anta Sali Mbàkke muy cosaan waaye nag muy lu histoire bu am solo boo xam ni jàngee nañ ci nungul sa borom kër jàngee nañ ci ak taalibe lu bari ci doom yi sëñ Tuubaa yi tamit fii lañ tëdd ñu toll ci fukki doom ak benn ak Serigne Mbaye Jaxate mi nga xam ne werakaan la woon ci Serigne Touba waaye muy dëkk boo xam ne dëkk bu am cosaan la comme ni ko sëñ Baara leeralee léegi eh, Serigne bi daan na feeñu sëñ Touba ci tukki bi ngir ni ko wax dëgg yàlla bàyyi gi nga xam ni bàyyi naa ko bàyyi nga ma ko ginnaaw daal bëggoon naa nga nga nga nga wétali ma nga fee fee nga ma dël war bu fekkoon maa la fa mujj waaw waaw nga xam ne lu am solo la kon loolu yéene jim mu amoon ci sëñ Touba la waaye sëñ Touba tamit yéene ji mu amoon ci sëñ Abibu waaye nga mën ngaa gis ne tey wéttaliku na ndax lampe bi yaakaar naa dafa mel ne dee duwaat bi rek ëpp na 3 millions kon di eh, defe naa <laughs> loolu moom tey xanaa wéttaliku na daal macha allah kon sëñ ma jëlal lampe bi ndax loo xam ne xay xay may mën naa valeur bi mën ëpp ci 3 millions sëñ Touba ñu defal la ko fi nga eh, waaw dee bi dee duwaan bi dee duwaan bi rek dee duwaan bi waaw mën naa mën ko xay ma ëpp 3 millions loolu day taw féex kon ku tëdd fii moo ko jar daal ki tëdd fii daal mooy mooy borom mi may mooy borom mi taw feex maanaam porte mhm. jàpp yi rek biñ koy wut ngir jafe gum jafe euh, Dubaay lañ ko dañoo dagg bi spécial dem wuti ko Dubaay rakki sëñ waa moo mel noonu euh, ndax li bépp barab buñ ko mën a defalal mooy porte xam nga porti yi bu nee dem nañ ba koy commandé ji di ko wuti ci biir Dubaay paas ak avion dem jëli ko loolu ki fi tëdd moo ko jar. waaw maanaam jàpp jàpp jàppukaay yi. <laughs> <laughs> loolu taw fi yàlla kon moom mbokk mi ngi noonu mu nekkoon ziar euh, général Nour Daare ni fii ci Nour Daare ñu waajal waxtu timi بقدرك العظيم في حق من أعطيته دون النسيم سلمتني من كل سوء وبلاء da ngeen jëf mbokk yi nga xam ne boobu ba léegi yéen a ngi ñuy topp ci eh, suñu site bi di eh, Thiès Events waaye nag ci ziar général Nooru Daara ni Géejawaay ñu ànd ak eh, suñu jëwriñ sëñ Moussa waaye nag ànd ak suñuy magi taalibe ku ci mel ni sëñ Basiru mii ngeen gis ci kanam ak sëñ Basiru njaay mi nga xam ne liggéey bu bëri ci loxoom la nekk ak mboolem waa Nooru Daara gépp gis nga ñoom ñi ngi nii toog waaye nag loolu dara warul ko du ziar général sëriñ Mountakha Mbacké mbokk yi tey ñi ngi ci buntu kër gu mag xam ne mooy Daaru Touba duggaguñ ci biir nag waaye bëgg nañoo dugg ci biir saafonteeg sëriñ bi nuyu ko jox ko suñu addiyee gis ngeen kii mooy sëriñ Moussa Seye euh, Tofatu bokk ci Nuuru Daarayni euh, euh, di di tuut tànk di jàmbaar ngeen koy dégg ci réew mi ci biti réew te bëgg nañ bu ñu duggee ci biir mu am yéene feesal yéenam ci kanamu sëriñ bi ndax wax na ko olofal bu neex boo xam ni bëgg nañ mu jàng ko ci kanamu sëriñ bi euh, comme niñ ko dalee fële ca Njaareem Xuru Mbàkke ba nañ agsee fii ci euh, Touba euh, sëñ Basiru Ndiaye mu mel ni tey ñi ngi bëgg a dugg ci biir kër gi war a ziyaare sëñ Muntaxa Mbàkke comme niñ ko defee Njaareem def ko Xuru Mbàkke ak sëñ Cheikh ñu ngi lay ziarat baax baax di waxaat jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba ndax day mel liggéey bi nañ ko tàmbalee comme ni ko jaar nañ Jurbel dugg fu bëree bëri ziar sëñ bi ban fa jógee ñu nga ci Daaru Tanzil te ngi ni taxaw ci war a dugg ngir siyaar ku tedd gi Cheikh Mountakha da ñaan ci barke Seexul Xadim mu yàgg fi loolu te wér day mel ni kon daara bi nu daara Pikine Guédiawaye day mel ni mu doon préparé ci at préparé ko ci weer ba ñëw tey day mel ni yéen a ji ci kanam tuuti dina yegg ndax sëñ bi mi ngi day mel ni mhm. kon xam naa pour ñu bañ a guddal rek mhm. tënk ko foofu xam naa fa jëlee dugg daal di siyaar sëñ bi di ñaan ci barkeb Seexul Xadim mhm. ñu gis ko ci jàmm salaam mhm. ñaan mu yàgg fi lool te mhm. daayira bii di nuur daayira bi ngeen fépp fi nga xam ne bëgg na faa yegg ci liggéey suñ Tuubaa buñ ko gisee suñu ndaxa yàlla na ko suñu borom nangu ci barkeb Seexul Xadim jërë ngeen jëf Ah, mbokk yi gis ngeen kaddu yaa ngi noonu dañoo fas ànd ak mboolem nuuru daari ni ak suñu jëwriñ daal dugg ci biir daal di siyaare saahibul fadila wal wasila cheikh mouhamadul muntaha mbacke nam leen ko waxee woon rek kullu man xaddama ni awzaara fa najjihi waxfir lahu awzaara ziyaare ko mooy texe ziyaare ko mooy mucc ci bàkkaar ziyaare ko wala nga sopp ko rek daal di texe àdduna ak alaxira suñu borom fasal la say bàkkaar tey ñëw na ci dëkk bu tedd bii di eh, touba mbacke ci tënk bu gàtt ci benn minute ñu jox sëñ basiru sëy la ñoo dugg ci biir su ko defee moom tamit mu joyal ay kaddu ci ñëw gi nga xam ñu ngi koy ñëw fii ci biir kër gu mag gi waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh sëriñ Cheikh noo ngi lay ziar baax baax di la jox sa wàcc waaye di ziar mboolem waa Nuuru Daareen yëpp di waxee ci kàddu jëwriñu liggéey bi sëriñ Moussa Seye ndax ku ne xam na ni mooy moo jiitu liggéey bi di nit ku baax ko xam te wax dëgg yàlla woyof na teey na yaat na te it njaboote ne ñëpp tey nag suñu borom dogal waa Nuuru Daareen Pikine Géejawaay jël seenub liggéey fas yéene koo jébbal si sëriñ bi yàlla dogal ñu koy waaj atum lëmb lañ ko waaj ba ci ba ci weer yu mujj yi ba ci bis yu mujj yi ba ci fan yu mujj yi ba ci fi nekk ñu ngi nii ci buntu kër gi mm. war a dugg ci biir kër gi jàkkaarloog sëriñ bi te it suñu xel dal na te it suñu yaakaar it gën naa dolliku ndax maanaam bu pàkk bi mu taxaw di daaru tansir rek daanaka doy na sëkk tey ñu am yéene yaakaarloog sëriñ bi den ak sëriñ Moussa mi nga xam ne wax dëgg yàlla tout boo xam ne ci liggéey bi la juddoo mhm. suñu borom dogal mu juddoo ci liggéey bi di liggéey di jàng ci liggéey bi di jàng di jàng di yàlla dogal tey ñu war a dugg ci biir mhm. comme ni nga ko noonu nag wolofal boobu mu jàng ci sëriñ Muntaxa mhm. ku ñu wax sëriñ Saliou Gueye Badar moo ko bind ñu ah. nit ku baax koo xam te ne wax dëgg yàlla sëriñ Tuubaa rek ko moko bind tek ko ci ay loxom ni ko li dama bëgg nga jang ko ci kanamu serigne muntaha ko dafa melni euh, yeenam joju day melni mu gi bëgg mat kon am nga yene mu jangal ko ci kanamu serigne muntaha ci ci kanam waaw yeene joju la ñam ndax dama tok ci kanamu serigne salih badar mu ne man day yeene ji ma am moy serigne musa sey wolofal bi mu jang ko ci kanamu serigne bi ta lool wax dig yalla day melni mu gi bëgg mat yeene joju day melni mu gi bëgg mat ndax am nañ ci yaakar ni buñ duggé ci dina ko jang ci kanamu serigne bi sun xel nak sun xel nak gëna dal serigne sila ndax mbolam nur daal ñu gis seen taxaway ak seen pass pass ak seen posture di ngeen gën a jàppaat ndax dëgg yàlla man dama yàgg ci liggéey bi ba ni ba ni sos liggéey bi maa ngi toog xam naa ci xam naa ci lu bare bare bare bare ñi ci nekk ñëpp ay jàmbaar lañu mm-hmm. mboolem ña ca jaaroon ca tàmbali ba ba suñu borom dogal Mm-hmm. ñu tukki ak ñi nga xamni suñu borom dogal nañu genn àdduna ñu ngi leen ñaanal suñu borom yërëm leen te jëgal leen mm-hmm. ñepp kenn ku ci nekk fa pëseef nga massi doxé ba suñu borom dogal mm-hmm. ni tay ku melni serigne soñu sey ma nga ne bokku na ci ñi nga xamni ne ñoo sosu liggéey bi di jambar mom ci liggéey bi bëgg serigne touba lool fonko momit di jambar ak mboolem wa nuru daarin yëpp ñi ñu dendal serigne basirou ndjay serigne cheikh serigne cheikh serigne cheikh juuf mi nga xamni ne ñu nit ku baax la bëgg serigne touba lool momit ak serigne yuusu sey ak mboolem wa daara gi yépp rek bu dëgg yalla suñu xel dalna suñu yaakar gëna naa dal ñu ngi sant ñu ngi sant jëwriñ nak ndax moom ñu moom mi nu dénk liggéey bi mu di ko doxal mu egsi fii tey ji ñu war fas yéene jël suñu addiyee jox ko sëñ bi ñoo ngi sant jëwriñ balaa ñoo sant suñu mu taxaa ci biir ñoo ngi sant jëwriñ bu baax ndax kat mom lañ jox sunu liggéey mu téllu ko ba ko téye ba légui mu ngi bëgg ta sa su nekk dina jël sunu liggéey indi ko bi moy bi ci muju ta ñu ngi ñaan yalla ñu def ko at yu bari te bu ñu ñëwaat at muy ñëw rek fekk fi sëñ muntaxaa jox ko sunu adiyee ndax lool moy yéene ji ndax ku nekk war ngay ñaanal suñu nyep mu mimel fi te lool ndax mom mom mom maanaam moom moonu dimbali ñun ñëpp ni réew mi mel jag gi mu jag ak jafé jafé yi nga xam tane doon nañ ko dund yépp mëna avancer wu dara xewul mom la kon ñu ngi ñaan suñu muntaxa yalla na fi yag lool te ci barke sunu xel sunu sunu xel dal dal na wa contane

هديتي للمصطفى في أبدي بلا مناء أو حسن أو كبدي من ظن أنه يكون أبدا يرضي بالذي كخدمتي بدا نبيت ظنه لأنبي الخديم بما ونام mbokk yi ci ñuy topp ci seen euh, sit bi nga xam ne mooy Thiès Events euh, si ndimbalal euh, Serigne Youssou Niane bi nga xam ne moo féete ci caméra bi ñu ngi koy jaajëfal bu baax di ko ndokkeel ndeysaan am na solo dugg nañ ci biir ziar nañu Serigne Mountakha Mbacké ba noppi ziar bu mucc ayib ziar bu neex ziar bu bu bu bu alaa doomi ni mu ko mën a waxee ànd ko suñu jëwriñ Serigne Moussa Seye ku ne xam ne ni mboolem Nour daan tey ñëpp a bég ñëpp a kontaan ñëpp a ànd ak mbégte sëñ Sonia bu euh, dugg nañ ci biir ba noppi génn muy ziar bu doy waar ci ay tënk bu gàtt rek nga gis tey mbooloo mi ni mel jugee ba ndakaar ñëw ñu naan danañ gis sëñ bi duñ gis sëñ bi sëñ bi ibil ñu boppam ñu jàkkaaroo moom jaxaran xanaa di sant yàlla bu baax rek di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di doole sant sëñ Tuubaa mhm. te xam ne ziar moom yombul mhm. ñun tawfeex na am mhm. tawfeex bu baax na am maanaam coono yi amul coono ndax mañ ñi daal siyaare ci sëriñ bi mhm. dañ daal jógee Sénégal ba Sarsara gànnaar mhm. di ko fekk sëriñ bi ak feneen ak feneen mhm. boo dee seet mel ni sëriñ Modou Lo Dagana ba muy seet si bi foofu la gënoon a méttee ndax si àll ak ay tartar ci la gisee sëriñ bi ci tàll ci àll bu lëndëm lool maam pas-pas bu gis sëriñ bi pas-pas boobu nag ñun moom tax a jógee Dakar ba fii gis fas yéene gis sëriñ bi bi ñëwee lépp yomb na kon ñu ngi sant Sëriñ Tuubaa bu baax a baax ci gis bi nga xam ne gis nañ ko sëriñ bi ñu koy sant Sëriñ Tuubaa bu baax jërëjëf jërëjëf sëñ Moussa Seye mu melni gis nañ la nga taxaw ci kanam sëñ Mountakha Mbacké jang fi olofal bi nga xamni olofal bi wërna na àdduna wërngal kap ñepp naan olofal bi olofal bi olofal bi waye wax nga ci sëñ bi ci biir euh, bi ñu dugg nga euh, jambar ñu wax sëñ Saliou Gueye Badar di talif kat moko talif waye olofal bi nga jang ko ci njàngin woo xamni ñepp mom lañ doon sentu tay nga taxaw ci kanam sëñ Mountakha ci kanam nit ñepp nga jang ko fa sëñ Mountakha ni la da nga am tawfiq loolu di loolu di mbekté ci ñepp ban yegi nga am ci ci taxaw gi nga taxaw ci sëñ Mountakha jangal ko olofal bi waaw loolu moom dañ ci am mbégte ak kontaante bu baax ndax wax dëgg yàlla ki bind olofal bi sax Serigne Saliou ba Badar mm-hmm. loolu moo nekkoon mébétam moy man sëñ Moussa sey mom moma jox olofal bi mhm. pour ma jang ko si kanam mun taxa mhm. kon yakar na ne sun borom matale na mebet bi yëpp xana di wax ñep rek ñu ñaanal mun taxa Mbàkke mu yag fi lol ta and ak wir mhm. bana li nga def xamne bëgg na ko defal mom ju bax ji mu def ko nim ko bëgge and ko yi barke borom Touba di jaar wa nur Daarin ah, di contane si ñom bax di contane si jëwriñ bu bax bax baax wax bi am Dakar bu fi ñew ziyaari sing bi kon alhamdullilah alhamdulilah ba si yàlla defee tawfeex sa soppe yi tamit bëgg nañ ndax tey dinañ la mën a gis ci kanamu sëriñ bi eh, nga jàng direct ci olofal bi nga xam ne moom nga moom ngeen ko moom ngeen ko defal dëgg la sama soppe tamit ñoom bëgg nañ ndax man tamit kontaan si ñoom baax mm-hmm. ndax ñëw nañ jàpp si bis bi. lépp lu si war rek soppe yi ak Nour Daarin yëpp. def nañ ko kon amuñu seen fay. di leen ñaanal bu baax a baax barke borom Tuubaa. ayca mi ngi noonu mbokk yi ziar général Nour Daarin la woon lépp mat na ginnaaw ba nga xam ne sëriñ bi tënkal nañu ay kàddu matale ko matale ci anam gi nga xam ne noonu lañ ko doon defee ginnaaw bi ñu jugee Njaareem jaar Xuru Mbàkke ñëw fii ci Touba wàcc Daaru Minam ñu dalal ñu foofu euh, fële nga xam ne mooy que sëñ Ibrahima Ñaan euh, di seexub sëñ Touba nag di jàmbaar fa ñu dalal muy mbégte ci ñun di am mbégte dajeeg ñun fii ci Daara Tanzil ñu ñëw nag dajeeg moom jox ko suñu liggéey mu sant ñu euh, gërëm ñu daal di ñuy ñaanal daal di ñaanal sëñ Moussa Sey mii ni ko nag da ngaa am tawfiix insha allahu rabbi kon nag euh, ñi ngi ñaan sëñ Mountakha mu yàgg fi loolu te ànd ak wér yàlla ko teew ay déwéni déwén waaw ñuy ñëw indaale ay xéwal yu bëree bëri barke saahibul fadil wasi barke sëñ Mountakha jërë ngeen jëf ne yaa ca man waa jamono Seex Baara dem Seex Sidi ñëw nga ngoy ci moom di sàkku yiw baax ak wayaf ku la ci raw mësula feeñ ci jamono Seex si fi woot ñàkk ayib maki murid yaak adab boo fi fekkoon duñ la daab siy téyem na jamono bu ci ñi yaa nga ca ñee diwaan amuñ fuñ lay ko njiit nga fa ñoom ñi di te njiit nga it fi jamono yoonu murit ñëpp la wekk fonk sunu sak nee woon yaay sunu mbéeg te yaay mbégum waa jamono yoonu murit yaay sini yaay bamba tey kenn ñepp ngi ñew di bof deram, yow yaay sangu wa jamono yow nu murid jay seeni maam yaay bamba tay ko ñepp ngi ñew di bof deram, yow yaay sangu wa jamono yow nu murid ñepp ngi ñaan nga tok ñu di la sen yow raw nga det raw nga teen géej nga gullëmbe jamono yoonu murit kenn diggatul jàmbatunu kenn ñaxtuwul saay gi mbàkke dal na xel yaay mbër mi jiite jamono te yaa woon ku dem ma dem ku demu lii du ma dem noo ngi taxaw ngir bëgga dem wallu nu yaamam jamono murid dia yor senjering jin njin nga lu yiw maanu ab sering yai bamba tai ci jamono yow lu la soob ya di leen si digla yow kenn ko cof nga doy saaf si kililif nga jamono yow ya ko digal bam gant ko ne ni ñal tekan luah begini kok giri ada ngir yaa de xubbu jamono sanal yu nga final jomal na mboolem senegal ak daayu yaatu nga fi taal te dootu fay ci jamono pas-pas ya ko yeesalaat muridi len soñu wat diine ji yaa ko taaralaat te ki gën ci jamono xoolal ba korona ku ne di xool num ci liñ la gën a teenawee ngir ni nga déggee jamono ngir ñaari téeméer na ci ay million nga jël jokku la doy mu jox ko réew mi nga yàgg jëf ci jamono tiijaan yi woote nga jëlaat téeméeri million jexewaat ngir bëgg seen ji naat bégal nga mbooleem jamono xoolal ma ndaw ñi tabbi woon ci géej gi am ñu faatu woon ñaar fukki mil yu nga jëloon jox ñi ñu ba ci jamono marché Ocass lakk fi bis mil yu ni cas jox leen ko réew mépp ko gis sam amul ci jamono naal nga fi université ngir yokku ndaw ñi ak nité si ji maa ngi koy noté dinaa ko wax waa jamono dinaa la way ay way way ngir yàlla dolli sama may ñëpp ngi lay waya ko rey ngir xam ni yaa moom jamono saalixu giy badar dalal te tëj sa way wi noppalul boo doon fi lim lim taxawal doo noppi diirub jamono yal na nu yàlla rus ci yow nga yàgga toog ñu yàgga ñëw bégal nga mag bégal nga ndaw yaay wettalu waa jamono yal na la yàlla dëgëral baloo final mu njàppandal barkib kësan ci njàppandal saalix mi woon ci jamono yal nañ fi sax ay ati at matali mboolem sey mebet muccal ci ndok muccal ci caat jëfaat lu yem waa jamono yal nañ fi sax ay ati at matali mboolem sey mebet muccal ci ndok muccal ci caat jëfaat lu yem waa jamono